waa salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àddina bi euh, man la Kona euh, chargé de la communication de l' association FILS formation de l' insertion des du Sénégal sunu grand sëñ Bamba Mbuub jiite ko tey ñu jox ñu kàddu mbër yi ñuy wax ci formation bi dure bi ñu nekk ci loxo yi nga xam ne ñoo ñu doon jàngal muy fit protection international jàngal ñu ba jox ñu ay lijaasa jox ñu carte professionnelle ñu nga xam ne tey ay nit yu am di ay diplômé lañ fi mu toll nii. te am nañu chance su euh, lu ku mel ni 3FPT euh, directrice bi di madame Abi Sey euh, financé jàppale plus de 60 lutteurs association FILS mën koo former ci jàppaleem ak ki nga xam ne mooy ministre de l'emploi Dame Diop et de l'insertion de la formation et de l'apprentissage tey am taxawaay bu am solo bu mu am ci jeunesse Sénégal particulièrement le lutteurs ñu bokk ci ñun nag doon nañu xool ci yenn yi bët ndax euh, euh, de bu ñu nee nervie wala ñu ne xeex wala xuloo wala agression xel yi dem ci ñun te tout un com contraire ndax des fois pombiteer benn pombiteer bu yàq boo moytul mën a yàq saak bi yépp des fois euh, dañuy juger toute une communauté wala toute une benn groupe wala benn benn benn métier ñu juger leen ci benn doxalin bu ñaaw ci ñenn ñi di ko doxalee mais ñun yàlla dogal na pour bañ a bokk ci ñooñu moo tax ñu dem formé wu dem jàngi li nga xam ne mooy sécurité jàng ko jàngin bu am solo nga xam ne tey diplôme yi ñu yor fu ñu ko wone ci àdduna bi dañ ñuy jël ñu liggéey on est des diplômés kon ñun bokk ñoom ñi nga xam ni ñoo taxawaalu di dóore wala ñoo xam xamante ñoom def lee sale boulot di def yu ñàkk fayda pour bañ a bokk ci ñooñu ak bañ a bokk aussi si ndaw yi nga xam ni peut-être ñoo ngi fuir seen destin peut-être xam nañ lan moo tax ñu koy def waaye ñun dañ jàpp ni loolu fuir sa destin la mooy lan jël gaal dem di di di di di jéem a dem beneen réew ngir seeti fa sa teraanga dëgg la dañoo am jom teral yaay ak papa rek lañ bëgg waaye jàpp naa ni bu ñu toogee fii organiser wu war na noo mën a taxaw fii teral suñu teral suñu bopp ba dem jot ñu soog a dem ci yoon bu légal ñu bañ a fuir suñu destin pour man coono gi ñuy daj ci biir géej gi wala ñi sept jours yi ñuy daj wala une semaine ñuy wala dee bi ñuy dee si biir géej risque boobu suñ ko jëlee Sénégal fii nii liggéey góorgóorlu dinañ am teraanga mais nag état dugal ci loxoom parce que feccum liir bu neexee nday jaatee ci wagg ya parce que neexul tey nga judd jàng ba am bac diplôme te amoo liggéey neexul tey nga dem defi formation am diplôme boo xam ne professionnel nga te amuloo liggéey sa xel mën na génn réew mi sa xel mën na nekk ci la kon état il a l'obligation comme Bamba Mbuub nekk na benn jeune boo xam ne man dama ko tuddee patrimoine national ah Bamba man patrimoine laa ko tudd patrimoine la parce que tey exemple la ci koo xam ne dafa dem bitim réew ne fa di liggéey am fa teraanga jékki-jékki xelam dem ci wayu Youssou Ndour ba mu mooy tukki waaye la mooy ñibbisi mu ñibbisi bàyyi fa ay ba muy ñibbi si ñam doon liggéey ay tubaab dañ ne ko da nga dof yow lu tax ngay bàyyi fii sa teraanga naan da ngay dem Sénégal mu ne damay dem Sénégal bi mu ñëwee Sénégal mu xool ci touche bi nga xam ne tey ñoom lañ gën a sous-estimé muy làmb ne amuñu xel wala ay ils ne pas intelligents mu jël leen di leen réinsérer mu jël leen di leen former di tàllal loxo 3FPT lépp lu ñu mus a financer Bamba pour mu former ay jeune tey y' a plus de anciens de plus yoo xam ne ñu ngi dund ci làmb ndax làmb sutura rek moo si nekk di nga gis ku bëre 10 combats du am tapaasu taxe tey jii Bamba am na ñu bëri ñu koy sollicité ci ay mbër pour ñëw def formation kon 3FPT la directrice bi nga xam ne daam de fer laa ko tuddee muy madame Abi Sey ñu ngi lay ñaan nga gën a jàppale association FILS mu gëna a ay jeunes en tant que mu ngi former ay jeunes rek mu ngi mu ngi réinsérer ay nit mu ngi xëccaat ay nit ci société bi te c'est très important parce que jeunesse bi tey waruñu décourager ndax Macky Sall dafa ne dafa am benn politique pour la jeunesse dafa taxaw def discours ne jeunes yi dégg naa leen je vous ai écouté je entendu mooy lan dégg naa leen dégg déglu naa leen Bamba ñëw na formé na ay ndaw ñu mel ni ñoom dañ leen war a jàppale bu ñu formee ba pare nag ñu jox leen ay moyen ñu constitué wu en GIE ñu financé leen ñu mën a liggéey man mii di wax ak yow chef d'entreprise la fi ma dëkk. dafa am insécurité muy cité APEX zone de recasement bi prolongement VDN Tivaouane Peulh mu am insécurité bu doy waa ñu jóg créer benn GIE avec l'aide de la population mu nekkoon une demande sociale ñu dem gendarmerie bi ñu jege muy gendarmerie Sokabek ñu dooleel ñu jox ñu ay matukaay tey ñu ngi employé cinquante jeunes yoo xam ne ñu ngi fa nekk chaque guddi ñuy def patrouille pour éradiquer insécurité bi fa amoon tey état bu ñu financé mën nañ dem ba orga ba def ay cent jeunes mën nañ dem ba employé ay plus de quatre leen gars yi ñoo fi dëkk on est des nañu jël daal di jël volontariat lañ ko jëlee mooy lan jël nañu commencé ko au début sept personnes cinq personnes tey on a plus a plus de cinquante personnes te état mu suñu appuyer kon tey suñu jàppalee tey dinañ employé plus de cent jeunes cent cinquante jeunes tey lan lan mooy loolu ndamal état la ndamal ndamal ndamal ndamal ndamal président bi la ndax jeunes yi fekk ñu ngi am lu ñu jàpp duñ dugg si naka sudul noonu c'est très important jeune bi laa fekk mu ngi am lu muy occupé mais jeune bu xëy suba ba ngoon deful dara pour nga woo ko ci lu ñàkk fayda mu nekk ca day day yomb pour nga woo ko mu génn taal ay pneu dafay yomb parce que amul mu def ba pare il est mais dara dafa metti nga juddu jàng am diplôme te amoo liggéey dafa metti nga dem defi formation am doole nekk mbër te sa sa sa sa sa sa métier dundalu la da ngay nekk ku mer da ngay nekk ku frustré da ngay foog ni li nga nekkee dafa am ñu la ko teg te am nañu la ko teg mais nag soo organiser woo comme ñun ut ay këyit teg ko ci yoon ak 3FPT wala ministre de l' emploi war nañ la mën a financer nga daal di doxal sa programme kon man loolu laay woo jeunes yi ne leen si 46 départements yi ak 14 régions du Sénégal pour man war nañu jàppale police ak gendarmerie ci insécurité bi am ci gox-goxaan yi man loolu laa gëm ndax moom laa des sama koñ ku fa ñëw di nga gis li ma wax te mën na nekk buñ koy commencé dañ ne woon mënul nekk mais mën na nekk parce que ñun ay jeunes lañ te ñiy def na ko sulul lañ comme ñun. te dañu xamanteeg ñoom li ñu xam ci ñoom sax police ak gendarmerie duñ ko xam ci ñoom kon ñun pour ñu jàpp leen wala pour ñu tere leen loolu ñu def ko dafay yomb pour ñu récupérer leen aussi dafay yomb am na ci ñoo xam dañ daan def sax mais dañ leen récupérer jël leen utal leen liggéey léegi ñoom ñooy sàmm gox ba c'est très important parce que ñun ndaw ñi mën naa taxam la ca dégg ba moom muy nuur ba ca ban ba ñun ñooy ànd ak ndaw yi nekk ay jeunes comme ñoom bokk ak ñoom génération kon suñ créé comité de sécurité teg ko ci dëkk ba dem bay aar dëkk bi léegi man leen yéen a ngi gagné fois yéen a ngi aar seen dëkk waaye yéen a ngi am lu ngeen yóbbu seen kër c'est très important te début bi idée la woon rek nii mais avec l'aide des délégués de quartier ak ñu dëkk ci koñ bi yëpp la toute la population mu nekkoon une demande sociale ñëpp ne Kona war ngeen jug ci lii ñu jug créer ko tey jii y'a trois années ñu ngi koy liggéey cité APIX kon tey exemple la bu ñu ñëwee defaat formation bi ñu ngi former suñuy élément tey formation bu ñu am def nii dinañ fu ñu gis formation dañuy dem ngir gën a yokk suñu xam kon maa ngi ñaan état du Sénégal ñu xam ni ñun duñu ay nervi encore une fois sénégalais yi aussi ñu bañ a def amalgame formation bi ñu ne formation professionnelle la du former pour ay nervi wala xeex wala xuloo ñun li ñu jàngal sax mooy waroo dóore ñun loolu la ñu jàngal discipline la ñu njëkk a jàngal nañu yow waroo lore yow njariñ kese ah ñun njariñ kese lañ njariñ bu àndut ak lor les soldaa de la paix ñun loolu lañ ñun dañuy ñëw fekk ordre dañuy fokk ordre maintien de l'ordre désordre désordre ñun dañ koy fexee def ordre war nañu mën a dugg ci ci mbooloo xam ne fii dafa nar am coow ñu calmer ko avant coow bi di am jàngal nañu loolu fépp fu ñu nekk tamit mu nar am coow dinañ yóbbu ñi nga xam ne ñoom lañ fa indi muy suñu VIP ba coow du fa am ñu ne ñu yow amoo droit même bu la nit dóoree maanaam bu la nit dóoree amoo droit jam ko bu la nit dóoree dóor ko nu mu la dóoree comme ni ko lislaam waxee te pourtant lislaam loolu la wax mais nit warul la dóor kurfeñ yow nga yëkkati jaasi dóor ko déedéet nit warul la warul la dóor paaka yow nga génnee fetal dóor ko déedéet arme kon ñun liñ ñu jàngal mooy self défense ak. passivité ak li nga xam ne mooy discipline ak avoir les têtes sur les épaules ba nga xam ni lépp lu nar a indi coow balaa coow ba di fa am sax nga nga nga nga nga nga kar nga kar coow boobu kon ñun ku ñu bëgg a xool ci violence wala di dóore wala tabasser la population non ñun dañu ñu former pour ñu nekk ay professionnels pour aar gox yee gox goxaan yi aar képp buy borom teraanga wala nga investir ci benn lieu bëgg jàmm di fa xew nga jël ñu ñu sécuriser la ko. ñun loolu mooy suñu liggéey mais formé wuñ pour ñu nekk ay nervi formé wuñ pour ñu nekk ay ay ay ay ay nga xam ne faiseur de salle boulot wala groupe la non ñi koy def nag ñoom la engagé mais ñun suñu formation bi ak association FILS formation l'insertion des lutteurs du Sénégal loolu la ñu wax trois fpt du ñu jàppale ñuy ñaan Dame Diop aussi mu gën ñu jàppale c'est très important parce que bu ñu formé jàngal ñu te utalu ñu métier ay frustré la ñuy doon te ndaw yi dem ci gaal yi tey ñun bëgguñu cee bokk te dañ ko dañoo bëgg a joxe exemple dañoo bëgg wax ni mën nga nekk ndaw nekk chef d'entreprise mën nga nekk ndaw créer ay say moroomu ndaw ci loo xam ne dañ ciy jàpp c'est très important kon ñun li ñuy ma ni dama ne ñuy dem ci géej comme daan neew ma leen mais dama ne coono gi ñuy daj ak sacrifice bi ñu def bu ñu ko defee seen réew tedd c'est très important damay wax parce que somme boobu ngay joxe bu ko xeeb somme boobu boo ko investir fenn wala nga am chance su def formation bu mel nii tey soo di déposé sa diplôme ci yenn société yi mën nañ la jël nga liggéey su loolu amul nga constitué wu GIE ngeen dem état ku mel ni 3FPT loolu lañ leen fi état tegee service ay direction yoo xam ne état moo leen fi teg pour ñuy financé la la jeunesse politique de la jeunesse dafa am ñu génne ay milliards teg ko ci table bi pour ay jeunes jeunes yi nag nekkul ñu am bac kese wala les dafa am ñoo xamante ne ni ay plombier lañ dafa am ñoo xamante ne ay ay cordonnier lañ dafa am ñoo xamante ne ay taximan lañ. nañu organiser wu dem ci direction yi fi état teg joxe fa seen i ñu financer leen ñu gën a dëgëral seen liggéey mais boo toogee organiser wu woo naan état état état mën na la bañ a comprendre parce que l' administration elle est écrite ñun nañu organiser wu dem cordonnier bi nañu boole seen doole organiser wu constitué dans GIE dem si 3FPT madame Abissé ñoom rek lay xaar mu jàppale leen Dame Diop loolu moom mooy mission kon encore une fois l' état c' est toi c' ñun ñëpp nañ xam ni réew mi ñun ñoo ko mën a defar. nuñ koy defaree ne du toog ci ay grand place di teg caay nuñ koy defaree mais dañuy créer dañuy créer dañoo war a jug uti sàkku parce que yàlla moo am lépp mais nee na ku sabab luwul du ma la jox sàkkantumaak nag état kon encore une fois on lance mënuñu wax ba daaneel te remercier wuñ ki nga xamante ni tey jii moom mooy la président de la république président bi nag ñu wax ñu koy woo parce que ay ndawu réewam lañ ay ndawu réewam lañ dañoo am taxawaay wala ñu am cër ci moom ci politique am waaye nag dañoo am droit woo ko ndax dañoo dajale milliards réew mi teg ko ci loxoom bu nekk cër bu nekk war cee am ndaw 75 pour cent wala mun nga sax 90 pour cent de la population ce sont des jeunes kon donc jeune yooyu noonu tey ñun dañ cee bokk kon am nañu droit tàllal suñu loxo état du Sénégal fu ñu koy tàllalee le président Macky ak ministre de l' emploi ministre de la jeunesse ministre des sports ak euh, direction de l' emploi bi nga xam ne madame Abisey moo ko jiite nañu jàppale jeunesse bi jeunesse bi tamit xam nan mooy tax ñu jàppale leen mooy nañu organiser wu nañu formel jébbal seen i lijaasa si direction yi nga xam ne moom la fi état teg pour ndaw ñi ñu financer leen ñu liggéey asalaamaaleykum wa rahmatullah